sëñ Modou Kara muy kilifa gu mag googu na ay béréb yoo xamante ni ci doon xale yi di leen defal bu baax ba waral xale yoo xamante ni doon def lu bon doon ci ko defati mais tey ñu dem mu am si benn problème boo xamante ni dal na ci ko am tey noo loolu waaw loolu ñëpp ni ni ni gaa ñi asar newoo ci kawam mm-hmm. képp kuy jullit daf la war a metti ku dul jullit daf la war a metti xam nga tax Cheikh Modou Kara Mbacké Noreyni doomi Seydina Ousmane Diom yi moom maam Thierno Ibra Fati mm-hmm. muy jàmbaar ci lislaam muy jàmbaar ci yoonu murit muy koo xam ne macha allah rabbi ndaw ñi bëggoon a bon récupérer na leen ndaw ñi bon ba amatuñu ci ñoom yaakaar mu récupérer leen ndaw ñi bëggoon a sànq mu récupérer leen di leen tarbiya di leen tasfiya di dugal ci ñoom alquran di dugal ci ñoom xasaayit Sëriñ tubaay di leen wat di leen waxloo ay allahu waahidun xaw ma ndax yéen a ngi koy fàttaliku. sa dijal wash wa yaa habijal bash muy muy muy muy muy muy waxloo ay ay xale yu ndaw xale yu taxaw foo dégg allahuma salli ala sayidina muhammad adada ma fi ilmila salatan daimatan fi dawami mulqila muy muy wax loo loolu xale yi di julli ci yonent bi muy jël ay kalimatu laa ilaha illa muhammad rasulullahi di ko waxloo gone yi sëriñ tubaa li mu def ci réew mi mu waxloo ñëpp jërëjëfe sëriñ tubaa kon kooku dafa dañ ko war a njukkal mm-hmm. kooku dañ ko war a maanaam maanaam maanaam dañ ko war a dooleel mm-hmm. waa mais di waruñu di acharné wu ci ci ci ci ci ci kawam te te man euh, yooyu ñuy wax ci base mm-hmm. boobu noonu man xam naa ci dara am na yoo xam ne gars yi dañu génne information da nga ñii fan lañ jëlee lii mais bëgg bëgg bëgg jël sëriñ bi bëgg ko yàq ne lii moo fa am diw dee na fa wala diw nag nangam ak nangam jëli ay vidéo ci àll bi am ñoo xam ne tey ji na duudu ma bëgg mbay taxawee woon ak sëñ Tuubaa noonu la ñu taxawee ak Cheikh Ahmadou Karam noori Noreyni dafa ñaaw maanaam ci loo xam ne ci nga ne yow kilifa nga. Mm-hmm. di inventé loo xam ni ci koo xam ne deful leen lu dul jël ndaw ñi. di dugal ci ñoom alxuraan dugal si ñoom xas xasida yi dugal ci ñoom sikkar dugal seen dënn yi kalimatu laa ilaaha waaye nag. sëñ Mourou Awa Balla waxoon na ko turandoom ba ne na ko Mourou. mu ne ko mu ne ko Mourou mu ne ko àdduna sépp buñ la doon diir kenn du la jam mu ne ko Mourou mu ne ko Mbàkke mu ne ko danaa ñaan yàlla loo bëgg yàlla def ko. mu ne ko ah mu ne ko Mourou du ma du ma ñaan loolu sax yàlla Mourou loo bëgg te yàlla dana ko def. kon nga gis ni mu mu sëñ Mourou Awa maa ngi ko jëlee ci sama baay bi Alaaji Amadou Sàmm. ale kumbakoor bii di ko ñaan yàlla na yàlla guddal fanam. Mm. moom alaaji Amadou sàmm maa ngi ko dégg mu wax ni wax ma ko ne ma sëñ Modou Awa Balla moo ko ne woon mu wëral daaru ndax alaaji Amadou moom suñu baay boobu moo defoon moo demul fenn fu dul sëñ Modou Awa Balla gëmul kenn ku dul sëñ Modou Awa Balla yaakaaru kenn ku dul sëñ Modou Awa Balla mu ne ko boobu sëñ Modou Kara nekk na gone nekkul mag nii ni mu nekkee ni mag mu ne ko wëral daaru wax waa daaru ni nañ jàpp ci Modou mi bu jóg jógaale leen buy baax baaxal leen donte sax day safaanu baaxal leen te ñu def ko muy seen Serigne Touba ñaata kuréel la Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni boo demee diwaanu silku jawaahir fi ahbaari sarairi ndaw ñaa ngi tari alquran baqara ba naasi Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni moo ko def ci ñoom nga dem ci yenn ay ay structure xam ñu ñoom li ñu gis KS bi lañ gis muy Kara sécurité mais li mu créé ci ay structure yoo xam ne ay jigéen ak ay góor yoo xam ne dañuy jàng xasida ah gëm Serigne Touba yaakaar ko di liggéeyal sëriñ bi du ñu dem ci boîte yi mm-hmm. du ñu dem ci majalisa saxaawa yi mm-hmm. du ñu taxawaal ju mu récupérer leen tarbiye leen mm-hmm. kooku daf ko war a wax ni jërëjëfe Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni maay waaye waruñoo mën a acharné wu ci ci ci ci kawam man loolu dama ko dama ko dama ko xaw a ñaawlu daal ba pare di ci di ci inventé xam nga moom dafa am missionnaire la man miir wax yow du sama sëriñ man mii di wax yow man daaru salaam laa yaakaar moom daaru musi la ne waaye ni mu nekkee njàmbaar amut morom ci yoon bi neexuta neexuta neexuta kii nag neexuta neexuta dégg parce que boo xoolee la lay won nii Sëriñ Tuubaa du ko liggéey loolu lu mu laal yàlla def ko yàlla def ci barke mooy lu sëñ bu raw baal waxoon bi mu fi newoon allahu waahidun dafa jëm kaw bi mu fi àndee jërëjëfe sëñ Tuubaa yoonu murit ñëpp ànd ko def bi mu fi àndee réew mi Bàmbaa ko moom mim réew bamba mooy ki ko moom gis nga damay gis sax chrétiens yi des fois ñu naan réew mi gisee ko moom ak yooyu moo lay wan ni li mu moo lay wan ni missionnaire la du du sëriñ comme ni ay non non du moom moom dafa am moom Sëñ Tuubaa dafa am mission bi mu ko jox boo xam ni ci ndaw ñi la mooy sànq wax naa ko yaa ayo sibiyaanu asubaanu maanaam ndaw ñi Sëñ Tuubaa du koo jël dénk ko Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni te boo demee diwaan boo gisee ndaw ñi nu ñuy jànge jàngee alquran mm-hmm. nga gis ay nu mu yaree ay doomam ah macha allah rabbi da ngay xam ni kii euh, dañ ko war a delloo njukkal nañ ko tey te nan ko nan ko nan ko nan ko nan maanaam euh, euh, gayndee ko samp wali ko samp fa kullu man yajju ajjun aw kara xattun lowoo wa laysa yanu kara ahmadu man dafa yeme Cheikh Modou Kara Mbacké Noreyni kon lii gars yi di def nii di acharné wu di andi ay information yoo xam ne amul as dafay dimbali sax état bi Cheikh Modou Kara dafay dimbali état Sénégal ndax tey jii ndaw yoo xam ne fii lañu nekkoon di agressé di naan sàngara di tux yàmbaa di nangu kiiwu jàmbur kenn ñemewu leen affronté fii la taxaw stade benn jour wax leen ne leen kaso yu jox leen ma ko bu ngeen ma ko joxee di ngeen am lu ngeen bëgg agression dootu fi am dara doot fi am mais ku taxaw loolu ku am kooku ci benn société mais kooku da ko war a di ko wax ni jërëjëf Mbàkke di ko ñaanal suñu borom gën a guddal fanam suñu borom gën a wéral cëram mais daal acharnement bi ñu def nii ci kawam ma loolu jaaxal na ma trop te li ñuy def wax ni ne moo am ay base moo am ci ay redressement ci centre redressement yi am ko man loolu daf ma yéem daf ma jaaxal parce que man je connais des gens yoo xam ne dañuy ñëw ne ma dimbali ma ci sama doom dama ko bëgg yóbbu ndax ah xamu ku xam sañ Modou Kara wala benn jëwriñam mm. dama bëgg yóbbu sama doom parce que dafa lëj ndax tey jii xale yi ñu bëri xam ne am na benn yoon boo xam ne bu ñu ko jëlee munoo mm. leen wax bu ñu dégg xam naa mais boo am te xale yi bu leen base bu ñu génnee cocc la ñu def mm. mais tarbiya ak tasfiya dafa ne ci daara sëñ Modou Kara ñu tuddee ay centre de redressement de non non non la daara la foofu man mii di waxee ak yow fanaan naa ci teen man mi di wax ak yow dama daan lekk njaxas ñu domodaa maafe suppu ji ceebu jën ñu boole ko ñu toog di lekk ñemewo bañ yor bool dem di yelwaani di màjjaali naan sama yaay añ mbaa desu añ macaan mbala xooñ mbaa taatu bool bu niin mbaa soxna ju mën a dem daara ja mbaa wecc ci ndong li mbaa gënaa guñ jañ ba ci ndong li dam daa dam ko def di màjjaal am koo xam ne sunu mboq la benn su dafa ma gis di jooy di jooy jooy yu métti ne sama papa man bugguma sama yaay bugguma la moo tax mu bàyyi ma may kii mais léegi loolu daara def ci man maa ngi sant yàlla bu baax kii nga xam ne tey jii am na xam ne dem nañu am est comprendre la ay master de mm-hmm. ñeewu ma leen ci man daara gi ma jaar te daara moo ko def ci man daara ak jéng noo ànd mm-hmm. daara ak dóor noo ànd loolu yëpp day pour tarbiya la am na yoo xam ne pour tarbiya toj toj sa xol la mais loolu ak daara ñoo ànd mm-hmm. parce que xale boo ko boo ko bëggee defar da nga koy jubbanti bant bu nooyee da ngay bàyyi ca nooy nooy ba nga koy mën a jubbantee waaye boo demee ba mu dëgër nga bëgg ko jubbanti soo moytul danga nga damm bant ba kon nag loolu la Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni di defar xale yi xale yi am na ñoo xam ne ñu bare génn nañu seen parents yi am ay satisfaction mais nekkul da ngay dugg rek nga fekk ñu dóor benn boy wala ñu dóor benn kii nga ñëw naan ay non Cheikh Ahmadou Kara naan am na ñu fa dee ak du de drogue ak Sambata Ndiaye ak du nga fii mais il faut gars moytul affaire boobu ñu def te xam ne doomi Seydina Ousmane ji maanaam dañ koo liggéeyloo jékkul jékku di di def nii de dañ ko liggéeyloo missionnaire la te ku nekk bëggoon nga am Cheikh Amadou Kara Mbacké Noreyni ci sa wet kon nag buñ ko amee ñun Sénégal danoo war a sant yàlla bu baax a baax a baax baax a baax gouvernement bi mu ngi ci mu jàppale gouvernement bi comme ni mu koy waxee ci xale yi waroon a jàdd mu jubanti leen kon ñu ngi koy ñaanal yàlla na yàlla guddal fanam te wéral ay cërëm bu baax. midi macha allah nga xam ne moom lépp may leer nga xam ne midi pile lépp leer bu njëkk ba ndeysaan di wax ni gars yi nañ koy bàyyi xel. di ko déglu bu baax a baax ndax ay information yu fiable lay joxe ay information loo xam da leen di jaral lu ne ñu dem ba ca source ba dem xool lan moo kii bi ñu génnee ko nekkuñu ay journaliste voya voya ay professionnel la fa ne yàlla na leen yàlla sàmm yàlla defal leen tawféex asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.